بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soppay imam malik rahmatullahi alay ñoo ngi am mbégte kontaante di ñëwaat ak yéen ci jitaayu Muwatta imam malik téere bu am solo boobu nga xamante ni bii ñoo nga ca commencé jataay ya ci lii lii di biographie imam malik rahmatullahi alay moom mi nga xamante ni bii athna alayhi nnaasu wal alaamu wa kulluhum qaalu huwa al imaamu ca jataay bee ñu génn nag ñu nekkoon ci mihnatul imam malik natt bi nga xamante ni bii suñ borom yàlla wàcce na ko ci imam malik ak nam ca doxale nga xamante ni bii jataay booba lañ cay génne rek mooy jullit bi ak natt ñoo ànd rawatina nag bu nekkee borom xam-xam rawatina bu nekkee ci di liggéey ci mbirum woote jëme ci yàlla ak jàng ak jàngale waaye tamit ñu xam ni lii di nattu yi day daanaka day tànn ñu baax ñi féeteeg ñoom salaa salaam noonu na ashaddul balaa yi ambiya nee na nattu daal ña ca gën a métti moo di yonent yi ak képp koo xam ne yaa ngi leen di jéem a dab dabal ci mbaax kon daal nit ki lu mu gën a jig ak mbaax rek na xam ne nattu yi gën nañoo jublu si ci moom tey nag incha allah ñu war a waxtaane lii di Muwatta imam Malik téere imam Malik boobu ñu doon junj tey lañ bëgg a waxtaan ci moom ah daañu ca dégge benn règle boo xam ni siiw na lool te mooy maakaane lillahi baqi lépp loo xam ni daal suñ borom yàlla moo tax ñu def ko ah dafiy des de comme ni nga xamante ni bii téere imam malik des na fi wax jooju tamit des fi waaye tamit daañ jàng ni nguur yi day du yépp ñoo tolloo ci nu ñuy doxale ci àdduna am na nguur yoo xam ni ña ko jiite dañoo am xam-xam lool moo tax diine du fa mas a des gannaaw loolu dana feeñ ci jitaay bii nga xamante ni bii moom la moom la nekk tey bu ñëwee nag ci Muwatta imam Malik daañu ko jël ci ay point point bu njëkk mooy waaw tur woowu fan la jóge ak lu tax ñu tuddee ko Muwatta ñu ni moo nga jóge ci at tawti ah te moo di tax yi ah ak tasxiil maanaam ak yombal ci la tur woowu jóge lan la yombal moo di xam-xam ak xadiis loolu day imam Malik yombal na ko ci téereem bi ba nit ñépp jot ci ndax bu njëkk day laata muy bind téere boobu da nga doon ñëw rek ñu nettali la xadiis boo nekkee ko mën a mokkal nga mokkal ko soo mën a bindal sa bopp nga bindal sa bopp waaye imam Malik moom jëlee na fi loolu tey ba mu bindeeb téere moo mën a nekk sa kanam ñuy jàng ngay dégg soo amee lu la ci lënt nga laaj ko mu dal di la koy saraal kon loolu bees tàq la loo xam ne imam malik moo ko créé am ñu ni li tax ñu tudde ko muwatta ñoo ngi ko jële min al muwataa te moo di al muwaafaqa maanaam ak dëppoo ci la tur woowu jógee ndax imam malik moo wax ci boppam mu ni sama téere bii day ba ma ko bindee ba mu pare jël naa ko yóbbu ko gaaral ko ci juróom-ñaar fukki borom xam-xam ci waa Médine ñoo xam ne ñoo gën a dégg dégg fiq ci Médine yépp nee na ñoom ñépp ñu dëppook man ci téere bi gis ni am na njariñ mënees na koo jàng mënees na koo génn ci nit ñi ñu jariñu ci nee na fa sammaytuhul Muwatta nee na ko nee na ca booba laa ko tuddee lii di al Muwatta téere bi nga xamante ni bii ah borom xam-xam yi dëppoon nañ ceeg man imaamu saxaawi nee na kii di imaam malik bi mu bindee téere bi lu ëpp fukk ci ay taabiin fukk ci ay borom xam-xam yoo xam ni saxaaba yi ñoo leen yaral seen bopp nee na ñoo ci dëppook imaam malik ni téere bii te téere ba am jariñ la mu ni kon naa ko génne nit ñu jariñu ci kon daañu jàng ci wax jooju paase ni ñun ñi day di di dund ci jamono ji ñu nekk am na soxla su taxaw mu yombal xam-xam ba mën a yegg ci ñépp ndax dañuy toog rek duñ ci jéem dara ah imaam Malik de moom ba mu nekkee ca jamono jooja loola xewoon xam-xam bari na lool tasaaroo waaye mu gis ni mën naa gën a yomb ba yegg ci ñëpp dafa xalaat luy tax mu yegg ci ñëpp te moo di bindub téere kon ñun suñ jamono tamit ah xam-xam tasaaroo na waaye nag mën naa gën a tasaaroo mën naa gën a yegg ci ñëpp koo koo xam ne rek xalaat nga ci mbir moomu loo gis ni mooy tax mu yegg ci nit ñi war nga jaagaaw te bokk na te lii tax mu mën a yegg ci ñëpp moo di lii di këri téléphone yeeg yu mel noona ñu jéem koo jox yitte bu baax a baax luñ mën ci tasaare fa xam-xam ñu du ko def dana bokk ci lii tax xam-xam tasaaroo xam-xam mën a yaatu ci penc mi ñaareel point bi nga xamante ni bii dañ ko jël ci sun jataayu tey bi moo di sababu taalifihi lan moo tax imam malik bindi téere bii di al muwatta foofu tamit ñu ne lu yéeme moo fa am ndax bu njëkk da ngay ñëw rek bind sa téere ndax ni da ngay bind téere pour mokkal dafa am loo bëgg a mokkal nga bind ko mokkal ko waaye téere imam malik du lool de ab décret moo génn décret moo génn ni imam malik bindal ñu téere ibnu xaldun nee na kii di abu jaafar al mansour nga xamante ni bii moo nekkoon njiitu jullit ñi ci jamono yooya moo génne décret ne imam malik bindal ma téere boo xam ni maa lay sax ni nga koy bindee mu ni ko bind ko waaye moytu ca lii di ruxasu ibnu abbas maanaam ibnu abbas masail yi masail yi nga xamante ni bii daf caa def yombal lool munu moytu ko mu ni ko waaye tamit moytu ca sawaad ibnu mas'ud kii di Seydina Abi Mas'ud day am na masaayil yu bari daf caa fee diggéew daf caa andi lu yéeme nee na yooyu tamit moytu ko bu ko dugal ci téere bi wa tashaddudaat ibni Omar nee na lii di taral ak teengal gi nga xamante ni bii ibnu Omar def na ko ci yenn masaayil yi mu ni ko na nga fexe ba moytu ko ci téere bi bu ko ci andi nee na imaam Malik ni lii daal moom la Abu Jaafar wax dal demee woon nan lay bindee téere bi kon dañ ko sa sax yoonoo muy jaar pour bind téere bi ci nettali boobu nga xamante ni bii ibnu xaldun nettali na ko donte nekk na lu yéeme nag ndax ku jàng mu woppa imam malik da nga gis ni daanaka boo ci génnee waxi ibnu omar ak fi xam daanaka téere ba jeex kon loolu defu ko waaw yegg na sax ci imam malik man gis naa ci téeram boobu di mu woppa ay mas ay masala yoo xam ni ibnu omar day wax nangam imam malik ni déedéet loolu day nekkul li ñuy jëfe fii ci Médine kon nga gis ni lépp toxal na ko ba toxal ci loo xam ne sax moom jëfewu ko kon li gën a wér daal mooy imaam Malik moo bindub téereem jubloon ca tasaare xam-xam ak jaamu yàlla loolu jàpp naa ni mooy li gën a wér su ko defee nag du tere xalifa bi mën naa ñëw sàkku ñu jël téere boobu def ko ab constitution def ko téere boo xam ni lii di nguur gi yépp ci la ñuy dellu loolu amul amul dàquwante waaye wax ji nga xamante ni bii ñëw na ci mel ni luy tuutal xam-xamu ibnu omar loola boo delloo ci moppa niñ ko tëggee doo ko ca gis da ngay gis ni ibnu omar daanaka mooy téere ba moo tax sax dañuy wax ni lii di fiq imam malik dafa saf lool omar ak kii di njabootam seydna omar ibnul xataab boo demee ci aw doxaliinam ak ak njabootam daanaka muwatta foofa lay tibbee fiqam yépp foofa la sukkandiku waaye nettali boobu daan ci jàngale ah bu nekkee ne am na day borom xam-xam yi nga xamante ni bi ñoo na dund ci jamono jooju ñoo buur yi daanaka ñoo tolloon xam-xam wala buur yi sax raw leen ndax abu jaafar kat bu nekkee moo wax wax ji wax ji ku am xam-xam lool moo ko mën a xam ba mën a seggi seppati wax yu sew yi nga xamante ni bi wax na ko ci ku nekk mu xam sa point faible bam ni nañ la moytu bañ buñ jël la faible ci yow kon loolu wute naag lool suñ buur yi léegi yi nga xamante ni bii ñu ci bari boo xoolan daanaka faatiya bu set sax duñ ko mën a tari ba pare bëgg a jiite réew wala nation boo xam ni ñi ci ëpp ñëpp ay jullit lañu kon beneen point bi nga xamante ni bii moo ca topp mooy mboppa ci ñaata at la ko imam malik bind téere boobu imam malik moo ngi ko bind ci ñeen fukki at ñeen fukki at def na ko ci di bind téere boobu imaamul awzaa'i nga xamante ni bii daanaka kàngam la moo ko imam malik sore ñëwul noonu la nekk woon moom tamit imam bu rëy ca Sham nee na ñëw nañ ci imam malik ñuy jël ci téeram boobu di Muwatta ndax loolu dafa nekkoon lu siiw ñépp bëgg a ñëw dégg téere bi ci moom ndax booba lu bees tàq am muy téere buñ bind ca Midin te boobu bind bareegut nee na ñu ñëw ñu def fi ñeent fukki fan sëgg ci téere bi ñeent fukki fan dal di koy jeexal nee na imaam Malik ne ah téere bii day doo leen ci jariñu dëgg-dëgg jariñu doo leen ko dégg dëgg-dëgg dégg ndax ma maa ngi ko bind ci ñeent fukki at yéen ngeen jël ko ci ñeent fukki fan weer ak fukki fan kese kon imaam Malik def na ci téere bi ñeent fukki at di ko liggéey ah imaam Malik nag ba mu bindee téere bii di al Muwatta ñi nekkoon ci midin nekk ay borom xam-xam ñoom tamit dañoo bind seen téere tudde ko Muwatta mbir ma jaxasoo am ñu ñëw ci imaam Malik ni ko yow de sonal nga sa bopp rek bind téere boo xam ni nit ñi bind nañ lu ñu mel tudde ko niñ ko tudde léegi sa téere bi dana réer ci biir téere yi imaam Malik ni andi leen li gaa ñu bind ñu andil ko ci yenn téere mu dal di ko yër delloo leen ko ni giñ naa ci yàlla ni dangeen xam ban ban bind wala ban téere la borom di sàkku yàlla ca bindam wa kan moo bind téere yàlla dong tax mu bind téere boobu sàkku ca dara loo xam ni ci àdduna lay dellu ka doon net li net net li ba mu ne ay fan lañ ca teg wala ay at mel ni téere yooyu yëpp dañ leen dajale sànni leen cib teen kenn déggatu leen ba am na sax riwaay boo wax ne imaam Malik lam ca tontu moo di maa kaana lillaahi baqi liñ bind daal te yàlla dong tax te muy sama téere bii nee na dana fi des de waaye baatam boobu des na fi comme ni fi Muwatta desee ñépp di ci dellu di wax ni maa kaana lillaahi baqi lépp loo def te yàlla kese tax ah du ma sa sànku nag danga ko fekk ca suñ borom yàlla mu fay la ko ci àdduna ak ci àllaaxira loolu nag day tolloog mbaax ak suñ borom yàlla la in shakartum la azidannakum lépp loo defal yàlla rek du réer léegi ñu ñëw ci lii di riwaayatul Muwatta Muwatta imaam Malik nag maanaam ñu bari riwaaya nañ ko jële ko ci moom maanaam dem ci moom sukk ci ay tànkam mu dal di net li leen téere bi wala ñoom wala wala ñoom ñu jàng ko mu dégg ñu dal di dajale seeni foo yóbbu seen dëkk ñu bari bari def nañ ko bokk na ca ka ca gën a siiwle gën cee yaatu la lu mu def moo di abi mus'ab az-zuhri kooku téere moo gën a yaatu ci mboolem téere yi muwatta yi boobu tamit mool nañ ko boo ñëwee ci almaktaba shamila da nga koo fekk wala nga dem ci fi ñuy jaaye téere ñaari tom la doon ñaari tom yu mag bokk na ci riwaaye bi gën a siiw ci lii de muwatta imam malik nga xamante ni bii boo xoolee ñi chara téere bi daanaka ñu ci bari foofu lañu sukkandiku borom xam-xam yi bari tamit seen sukkandikukaay ci bu ñu waxee ci Muwatta dara rek foofa lañ ko tibbee moo di riwaayat Yaxya ibn Yaxya al-Laysi nga xamante ni bii ci côté Andalus la dëkkoon moom ab téereem siiw na lool moo tax sax chara bi nga xamante ni bii ñun ci la ñuy sukkandiku bu ñu yeggee ci chara addis yi ka ko bind ci téere boobu ci la doon sukkandiku moom nag hadis yi nga xamante ni bii moo ne ci ab téeréem juróom-ñetti téeméer la ak juróom fukk ak ñett kon loolu mooy hadis yi nga xamante ni bii moo ne ci riwaayatu Yaxya ibn Yaxya al-Laythi Muwatta nag mën na ni mooy téere bi gën a màgg ci téere yi nga xamante ni bii bind nañ ko ci lislaam li waral loolu moo di moom la jantam jëkk a fenk waaw moo tax moo nekk cosaan ci ginnaaw téere yi nga xamante ni bii ñëw nañ yépp boo demee ci Buxaari ak Muslim ak ñi topp ci seen gannaaw ñoom ñëpp ca imaam Malik dañ doon copier di bind seeni téere kon imaam Malik téere moo jiitu ci côté jamono moo jëkk a juddu waaye tamit moom mi ko bind ñëw ci ginnaawam ñëpp tamit moo leen jiitu kenn dabu ko ci moo tax boo doon xool ñi nga xamante ni bii xam nañ ko mel ni imaamul Buxaari da ngay fekk ca béréb yu bari du tax ñu bari lool waaye boo ne imaam Malik ñu bari dañ koy xam lu ko waral mooy wàccuwaay bi mu am ci fiqh wàccuwaay bi mu am ci ñeenti ngéer yi gën a siiw ci àdduna mu jiite benn ba ak yeneen yu baree bari yoo xam ni suñ borom yàlla defal na ko imaam Malik ba tax mu siiw siiw koo xam ni ñëw ci ginnaawam nag egguñu foofu fi ñuy jeexale nag moo di shuruxul muwatta li nga xamante ni bii mooy chara yi nga xamante ni bii chara nañ ko téere boobu te mu nekk yu baree bari léegi jéggi na téeméer téere boo xam ni liñ ko chara ëpp na téeméer ah loolu day wane ni téere boobu téere bu màgg la mën nañoo lim ci chara yooyu at tamhid lima fi muwatta min al maani wal asanid téere boobu ki ko bind moo di ibnu abdul bar nekk kàngam bu mag a mag ci ngeeru malik bokk na ci téere yooyu tamit al istidkar fi sharxi madahibi ulamai l amsar loolu tamit ibn abdul bar moo ko bindaat kon ñaari téere yooyu yëpp moom moo ko bind di ci chara lii di muwatta imam malik boo demee ci bu njëkk ba danga ca fekk mbirum hadis dana ca saf-sàpp waaye boo demee ci ñaareel bi di nga fekk lii di fiq moo ciy gën a lëng moo ci ëpp doole bokk na sax ci ñeenti téere yi gën a siiw ci lislaam kon nga xam ni téere bay cosaanam tamit du nekk bu ndaw comme que chara bi rek jël na ñeenteelu place ci lislaam ci téere yi gën a siiw ah kon nga xam ni cosaanam tamit desul gannaaw bokk na ci shurux yi nga xamante ni bii siiw nañ lool ci Muwatta Imam Malik te suñuy jotaay incha allahu daañ ci dellu lu bari sharxu Zarqaani imaamu Zarqaani moom tamit charaan charaan li Muwatta Imam Malik ci ñeenti tom ñeenti téere yoo xam ne yu mag a mag la mu nekk chara boo xam ni taxul mu gudd lool waaye gàttu tamit nag bari lool ay njariñ xam naa kon dañuy taxaw foofu ba jotaay bi di ñëw wassalaamu aleykum wa rahmatullah